Heavyweight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 nag nee ñu ña nga dëkkoon foofu ca ñaning mbir mi nag nee ñu ni la demee benn suba aajee ji jëkkëru ndaw si dafa xëyoon dem jëndi mburu bu ñu ndekkee naka noonu bi mu génnee rek em caare di jabar ji daa di tëj buntu bi jël ñaari paaka dal di fekk doomam bi am 14 ans di woo ci turu Ibrahima jam ko ko juróom ñaari yoon te nag nee na ñu ñaaw bi mu koy def mu ko def ci kanamu beneen doomam bi am ñetti at di woo ci xew jëkkër ji nag bi mu gellu see fekk bunt bi tëju mu fog fog kenn ubbilu ko naka noonu nag ci la defee ay pexe ba ubbi bunt bi bu mu ubbee bunt bi ndeysaan ci la yemee ci doomam ji am fukki weer ak ñeent gis ko muy feey ci deret ci noonu doomam ji am ñetti at daw la xasu ko boobu nag bi ko jëkkër ji gisee ci la interpellé jabaram ji di am caare ndaw si kadd kadd di waaj xaru ne day rey boppam ci kadd kaddam jooju na ne day rey boppam jëkkër ji fexe na ba neutraliser ko maîtriser ko daa di koy jëbal yoon ñu arrêté ko defeere ko parquet placé ko sous mandat de dépôt pour assassinat olof di ko wax faat bakkan waaye xew ci réew mi kenn xamul lan la em caare mi def ñaaw teef di ci kanamu yoon jinne yi la accusé cey ñoo ko sant mu rey doomam jooju nee na balaa moo def mbir mu ñaaw moomu ay baatu nit la déggee fu ne muy jolli naan naan ko rayal sa doom rayal sa doom <laughs> ma ne cey yow mal xiyam dina metti tax soxna si ne bu muy def yëf yi àndul woon ak sagoom moom daal dafa meloon ni ku doof kumba boole ci nee na li mu def sax xamul lu ko ko defloo jëkkër ji tamit gannaaw ñakk bu metti boo mu ñakk doomam terewul mu défendre soxnaam si ndax nee na soxnaam soosu bi mu ñàkkee yaayam ba léegi tombeeg mu am doomam jooju ay comportement yu doy waar la doon wane maanaam daal bopp bi dafa mel ni lu a ñoom ñaar yàgg nañu am nañu ñetti doom waaye comportement bu mel ni mësu ko wane soxna si mësul violente ndeysaan moom daal li mu jàpp mooy li tax mu def li mu def mooy xel mee xaw dem gannaaw bi kàddu yooyu jubee na ci bérébu attekaay bi ci la avocat yi sakko ñu bàyyi ndaw si ngir mu dem faju ji waaye procureur bi moom mu ngi laaj ñu tëj ndaw si perpétuité wolof di ko wax giiru dund délibération bi nag ñu ngi koy xaar la 14 novembre ni réew mi lu ne ciy xew moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca mbuur day na war ab góor gu am jabar ak ay doom di magum jëmm la wax moo fa doon luwe néegam ay jigéen ñuy jaay seen bopp ci njëgu 1000 francs waay waay waay waay mim góor gi 1000 la doon luwee néeg bi caga yooyu nag ku ci am client day ñëw waxaale góor gi góor gi lu ko nekk bi 1000 francs bu ñu jëfandikoo ba noppi daal di génn dem eskay ba bis nag seen nas ndaw soo xam ne ci méccum cagatu moomu la nekkoon doon ko defee ci ndar daal ñëw ci mbuur ndaw si sax nee na moom bàyyi woon na waaye bi mu ñëwee mbuur dafa am ab client mu fay ko cinquante mille naka noonu ci la demee gis góor gi góor gi luwe ko nekk bi ci njëgu mille francs gannaaw nag ba ñu nekkee ci noonu noonu ci la leen woy takk der yi fekk foofu daal di leen arrêté ci kanamu yoon nag góor gi nee na xamul woon li muy def sax dañ koy tere te it li tax mu doon def lu ni mel di luwee néegam boobu 1000 francs caga yi di ci jëfandikoo mooy dëkk bee metti njëkk yi seer amul lu mu dundalee njabootam ma ne ko nag ba tax nga jël sa néeg di ci def lu ni mel ndaw néeg bu umu góor bu ne jigéen bu ne